centrale bi nag comme nu ngeen ko xamee président moo am xalaat bi jox ñu ko ñu xool ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi fii ci Sénégal ñu waxtaan ak ñoom pour defar centrale bi ndaxte xam ngeen ne Sénélec yàgg na liggéey ci wàllu technique gu centrale léegi ñu ne lu tax lii nit ñi daan ñëw di ñu ko defal ñun mënuñ ko defal suñu bopp président nañu na seneleg nekk bras technique bi maanaam lu nekk si wàllu technique bi yëpp mu taxaw ñu dem xool ay sénégalais yoo xam ne yàgg nañ si financement yàgg nañ lijjanti financement ñu dajaloog ñoom ñu booloo donc ñoom ñu indi xaalis bi ñun ñu indi suñu partie technique loolu moo jur lii tey buñ ko signé nag ñëpp yaakaaroon nañ ne du continuer ñu ñu doon xaar si étape bu gën a métti ci defar centrale maanaam lu ñuy wax phase de développement phase de développement bi mooy lan mooy nga dem négocier contrat yi yëpp. sur le plan technique mooy aussi nga dem négocier contrat de financement yëpp mais mooy surtout nga indi fonds propres yi nga xam ne mooy tax banque bi wóolu la pour mun a dugal xaalisam ci projet bi gis ngeen lii nag nekk sama ginnaaw moo naan lii nekkatul loo xam ne dañ koy nettali mais lu ñëpp gis la te yaakaar naa ne luñ ma présenté fii léegi rassuré nañ ma né ma bu soobee yalla balay at bi di jeex dinañ mëna jël mégawatt yu njëkk ñu injecté ko ci réseau Sénélec bi té loolu su dina nekk beneen gulet bu nga xam dina nekk satisfaction ndaxte président si gis-gisam lii la woon donc centrale bi si gaz lay dox donc mooy programme bi nga xam ne moom gouvernement bi def lu ñuy wax gaz du paw maanaam jël gaz bi utili ko utiliser ko pour dem ci wàllu électricité centrale bi si loolu lay dox mais léegi nag comme centrale bi dina pare

mais aussi centrale la boo xam ne day daw ak gaz gaz boo xam ne bés bu jógee si bitim réew nga xam ne njëg buñ koy jëndee moo gën a wàññeeku loolu dina mën a tax coût yu mu doon toggee électricité bi gën a wàññeeku te lool bu gën a wàññeekoo tamit dañ koy delloo client bi. bon 432 millions maanaam million d'euros maanaam ñetti téeméer ak fanweer ak ñaari million euros lay jar maanaam 283 milliards. muy e, ñaar fukk ak juróom-ñett ak ñaari milliards francs CFA yoo xam ne nii moom lañ ko defaree te loolu yëpp muy xaalis bi nga xam ne xaalis boo xam ne sénégalais yi ñoo ko mobiliser ak aussi ay banque africaine donc loolu noonu buñ ko xoolee maanaam lu ñuy wax contenu local au niveau di Sénégal te yaakaar naa ne si taarix dina bokk si centrale yoo xam ne dinañ ko joxe exemple mais aussi dina bokk centrale yo xamné nit ñi dinañ ñëw xol siñu parce que yamuñu fi ñu ngi paré guñu mais dinañ ko dello parce que fum mu toll West Africa Energy ñëw na adhéré au niveau du WAP nga xamné dina mëna permettre ñu jël modèle bi dépliquer ko fep ci Afrique de l'Ouest donc lolu dal suñu satisfaction la suñu fierté la encore une fois.